ci yenn kaay yi ci yéenekaay yi jàmm ci xibaar yi nga xam ne rek toppoon na ñaari député Néma El Hadj Mamadou Sall ak Boubacar Biaye yéenekaay gi duñu xam gi duñu xam ne jamono ji kay ñaari député yooyu mel nañ sax bu ñu toogee ci nen du toj kàddu yi nga xam ne rek Moustapha Niass yëkkati na ko moom borom kër Madiabel moom kay la mu wax moo di gannaaw càkkutee fa jëwriñ yi nga xam ne moom la ñu dénk loo xam ne rek jëm na ci wàllu ko yoon ci réewum Sénégal yéen i kaay gi duñu xam ne gën gaa yeex fukki fan ak juróom-ñett ci weeru i kaay dëggal xibaar ko xam ne jamono ji kay gën gaa yeex laa fukki fan yi ñu nekk ne rek dañu leen doon tudd ci lu jëm ci wàllu passeport diplomatique coow la nga xam ne moo leen ca toppee danañu càmbar seen mbir maanaam daal xool ba xam ñoom dañuy lever seen immunité parlementaire waaw wala déet le quotidien yéen kaay du ñu xamal ne mbir mu doy mbirum passeport diplomatique moomee Moustapha Niass xam na ne lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllug yoon maanaam daal la ko yoon santaane danañu ko def yoon le quotidien yéen kaay du ñu xamal ne bu jaare yoon kay lépp ne rek moom la ñu kaay gi di ne jamono ji nag coalition yi nga xam ne rek na ñoo ne rek la waxtaane ak sàrt goo xam ne rek dinañu ko tënk ngir lu jëm ci wàllu ko jàmm ndax fitna yi nga xam ne rek jotees na koo nemmeeku ci li nga xam ne rek moom moo di élection locale yi élection locale yi ba tax na ñoom kay lañu bëgg maanaam campagne ak élection locale yu jaar yoon yoo xam ne ay jafe-jafe du am ci réewum Sénégal dara du dajale laas yéene ne ko ab kay lañu ko doon defal ngir Bougane Gueye Dany moome lañu koy laaj ngir mu mën a bokk ci élection locale yi mën a am yéene gi duñu xamal loolee nag am na ndax militant yi nag dajale nañ ay koppar yu toll fukki million ak ñett ngir jàppale di Bougane Gueye nañu jàppante ba ci Sud Quotidien yéen i kaay gi duñu xam ne lu jëm ci wàllu ubbiteg école gi nag amal nañu ko waaye ubbiteg école gi duñu xam ne am ñoo lànk bañ a ñëw ba tax na ñii nga xam ne rek ñoom ñoo jiite iyaaye ñoom nag doon wax ak parents d'élèves ne nag lii nga xam ne rek am na maanaam daal ay benneti benneti élève di ñëw ci école yi la war a ñëw dëgg ñëwuñu loole itam war nañu ko seetaat lañu defoon seetaat ko dong yi nga xam ne rek mi jéggal nañ leen ci turu école Sénégal waaye nag tuuti ñu nangu yooyee la jëf di amati ci réewum Sénégal te jamono jooje laas yéen xamal génnu at Joseph Koto moom moo nekkoon entraîneur U23 gannaaw ak malaise gu ko dugg ay atam tolloon ci juróom benn fukk ak benn Sud Quotidien yéen kaay di ñu mi Macky Sall di xam ne Sénégal kay ñàkk nañu kuma kaay ñëwaat ci askanu Sénégal ak jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci lu jëm ci ay tali bon rawatina askan wi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk caara expo Dubaï ñu xamal ne moom kay da doon xamal ne moom mooy directeur général budget bu réewum Sénégal mu mbocca juróom-ñaari millions ci waa ji yóbbu yéenekaay gi duñu xam ne moom nag yëmut foofee ndax da doon dajale ay xale yu jigéen di def ak ñoom yëfi caaxaan man de damaa waaru moom wërtoon a leneen lu dul loolu waaye nag am na ñu neexal nag directeur général bu budget ba ci lan dama lay jox sama juróom-ñaari million cey réew mi ki problème dana war El Hadji Ousseynou Ndiaye ak El